Euh, professeur euh, Ndiaye ma fàttale rek ñi nga xam ne ñoo ñuy euh, seetaan mu ngi ca faculté de médecine rawatina pharmacie ak odontologie sto stomatologie di itam expert foofee ca OMS rawatina ci wàllum paludisme di koo xam ne. rafetlu nañ bu baax euh, xam-xamam fii ci Sénégal waaye itam ci àdduna wërngal këpp donc professeur euh, ñàkkul ne boobu ba léegi yaa ngi euh, suivre évolution pandémie bi fii ci Sénégal man laaj bi may njëkk laaj peut-être mooy fi mu toll nii ñun ci ban stade lañ toll ci pandémie bi fii ci Sénégal professeur balaa ñuy gën a dugg ci waxtaan bi. waaw boo xam ne mooy phase d'évolution normale par rapport ak Mhm. Euh, parce que egguñu egguñu pic bi de apparemment on egguñu pic bi donc comme egguñu pic bi. donc mhm. mooy phase de progression bi xam ne euh, mooy comme li xew ci dans tous les pays phase boo nga xam ne dañ am ay cas yu bees yu ñëw am ay cas yu wàññeeku. Mhm. Euh, parfois fan yii gis nañu ne gerte xaw na accéléré wu. ci nombre de cas communautaire donc loolu mooy su benn tournant daal bu ñu toll ci xeex boo xam ne la euh, prochain jour yi wala prochaine semaine yi seront déterminants également ñu xool ndax réellement maîtrise pas mais pour le moment euh, la mhm. situation semble être maîtrisée comparé ak mhm. yeneen pays comme yu taw et là c'est mhm. pratiquement li ñuy gis en Afrique de manière générale mooy li ñu gis en alors professeur euh, ñu ngi dégg le professeur Abdoulaye Bousso mi nga xam ne yor centre des opérations d'urgence sanitaire addu ci wàllum dépistage euh, massif bi nga ne peut-être ñenn ñi jàpp nañ ne mën solution Mon jàpp na ne fii ci Sénégal tollooguñ ci jëm ci dépistage massif est-ce que da ngay partager boobu les euh, avis. waaw damay damay d'abord expliquer dans le principe hein dans le principe. Mhm. te puissance massive loo nga xam ne principe la nga xam ne euh, ça se rek mais li ci gën a ëpp solo booy il faut ñu xam ne am na dafa am ay conditions yoo koy tegee quoi tax mm-hmm. Mm-hmm. Euh, boo tax man li may pour pour le moment étape bi ñu toll mm-hmm. euh, li nga xam ne yaakaar naa ne Afrique ñu am nañ ko mooy ce qu'on appelle le dépistage cours du cas index mooy fu nga xam ne jàngor bi am na parce que bo xolé ñepp ñu jitt ci les cas contact donc mais man pour man ci tangoro bi nek am au cas au niveau des cas communautaires. hmm lu ñu ko mën a gën a dépister rek autour du cas du rek ñi nga xam ne contact ci mais au cours du cas andé ci dans les cas communautaires. luñ ko mëna gëna euh a saytoo ci ñu ko euh ñu laala u ñaata laale ci sera une bonne chose. Mm-hmm. maintenant parce que boo jëlee ci informatique mooy bu ni ni ko nit ñi dégg mooy à l' échelle nationale mooy ci ñu jël doomu aadama ñu def semaine. Mm-hmm. xam nga loolu lan moo ci un peu dans le principe y' a pas ci loo xam ne il faut ñu ra mm-hmm. mooy d' abord il faut nga am test boo xam ne nit ki boo ko saytoo léegi di nga résultat bi léegi. pour que mu mën ko faj léegi parce que mënuloo jël nit test ko léegi. bàyyi ko mu dem après résultat bi génn nga naan suñu dugg ak seen la pour ñu pour ñu traité di ko. donc il faut avoir un test rapide boo xam ne Sénégal. non test rapide amagul fenn boo xam ne antigène yi la antigène yi boo xam ne validé nañ ko. ci mhm. ci stade euh, amagul boo xam ne tey ñëpp nangu nañ ne moom mooy test boo xam ne mën na mën na am am na boobu doole. am na ñuy am na ñuy am nag. mais bu am mhm. doole bu bu ñu soxla comme test yi def na war sax am euh, ba ba ñëpp nangu ko amagul. te mhm. donc ñeneen tey mu nekk sa nit ki léegi. nga ne am am alors am na ko ak xam nga foofu dafa am benn dawal yu muy créé deuxièmement mhm. euh, day jëm ànd également parce que tey mun nga tester léegi kenn euh, euh, tey léegi-léegi ci suma si mii ci bitti pharmacie boobu kooku génn këram dem dem ci bitti mu bu ñu demee ci goon ci mu indaale mu mu dem infection indi ko ci kër ga donc kooku mhm. tey jàpp na tey tey suba def nañ ko négatif na ñu ñi jàpp nañ ko kooku négatif dem na ba génn indaale ko donc en situation de confinement léegi ëpp doole nga xam ne leer na leen nit ki bu ñu ko testé ko jëli ci kenn parce que testé nañu fa nekk ñëpp bu leen weesoo également mooy du xel nanguwul nga dikk ko mu am doomu jàngoro bi dafa dinoo ko il faut nga faj ko te faj boo xam ne la traitement euh, am bu nga xam ne moo ko mën a faj bi rey doomu jàngoro bi il am ko donc mhm.

suñ ko defee am nañ ci yaakaar que ne dina dina dina dina dina am professeur Euh, peut-être beneen euh, laaj boo xam ne euh, dinañu permettre ñu ñëw ci wàllum remède yeeg yi ñu mel yi nga xam ne ñu ngi ciy dégg yu bëri rawatina foofee ca Madagascar mais fii ci senegal bu ñu xoolee taux de guérison bi maanaam fi mu toll nii dafa xaw a wàcc bu baax a baax ci ay fan ci ginnaaw dañ doon gis ne nombre de guéris dañ doon gis ay 14 guéris 17 guéris ak ñu ni mel tey jii boo xool benn guéri la ñu am mu mel ni peut-être taux de guérison bi wàcc na bu baax lan moo koy justifier selon yow traitement bi peut-être moo def defatul effet wala nombre de cas yi ñu jékki-jékki bëri moo ko waral balaa ñu ñëw ci beneen laaj bi. en tout cas dafa laaj dafa laaj dafa laaj gëstu dafa laaj gëstu man c'est prématuré ñi ma expliqué lan la mais li leer mooy loolu il faut gars yi xam lan moo ko waral parce que effectivement bon bu mu ne am na lu ñu doon utilisé te gis nañu wàññeeku na te doo bi dafay wàcc taux de guérison bi dañ si dem million ngi settee ñu ngi benn bon te man dafa aussi exercice boo xam ne Mhm. mais aujourd'hui tous les cas sont traités maintenant lan moo tax guérison yi dematul dafa dem demande investigation ak analyse maintenant ñi nga xam ne ñooy faj ak li ñuy fajee bon je préfère dire qu'aujourd'hui ils sont en train de faire analyse pour expliquer lan moo tax man du ma mën wax garab bi moom problème wala am garab mais euh, euh, dama leen bàyyi ñu génn ñoom expliquer comme niñ ko doon waxee parce que plusieurs facteurs mën na ko indi mais effectivement booy faj te nit ki wër wëratul nit ñi wëratuñu il faut am explication boo joxe donc loolu mooy li nga xam ne day laaj ñu expliquer ko ñu xam lan moo xew mais li ma nangu également mooy tollaguñ koo xam ne attanuguñ ko parce que egguñu sax mille cas donc bu hmm. egguñu mille cas bu fekkente ne egguñu mille cas mënu mënuñ seen euh, mënuñ faj mënuñoo ko mënuñu leen faj fan lañ jëm ci deux millions trois mille cas donc dafa laaj taxaw seetlu xam lan moo xew maintenant. Mhm. ñu wax ni garab bi la war fii ci Sénégal ñu ngi euh, utiliser euh, li nga xam ne mooy hydroxychloroquine di ko booleeg azithromycine bi ak yeneen i xeetu garab yi ñuy fajee euh, patients yi ñuy dégg ci euh, bés yi nga xam ne moom la ñu génn ñuy wax artémisia rawatina foofee ca euh, Madagascar nga xam ne le professeur Jérôme Muyangi je pense moom moo commencé développer boobu remède yow lan mooy sa xalaat ci boobu les garab di artémisia nga xam ne ñu ngi koy fajee lii di coronavirus bi foofu ci Sénégal wala jàpp nañ ne mën na faj coronavirus bi foofu ca Madagascar ba Sénégal sax peut-être ñuy xalaat ne war nañ ko fi a tester ban gis-gis nga ci am professeur.

par rapport à un produit mais. Mhm. pour moi également euh, donc dans le mhm. principe c'est quelque qu'il faut accepter que les Africains également ont le droit par rapport à ces cliniques là. Mhm. Il y a des chercheurs qualifiés comme un africains donc. nous c'est ça respecte en tout cas respecté nañu en tout cas les les les les les bases fondamentales de la science. Mm-hmm. ak de de de l'inoculture ak par rapport ak ak nit ñi ñu koy utiliser. maintenant euh, li ci am solo mooy tey jii nii effectivement newuñu bii garab mooy faj corona bi moo ko faj bi nag mooy bi koy rey parce que faj bi jaay la wax mooy mu ngi koy mu ngi koy wàññi mu bokk solo si traitement symptomatique yi wala mi ngi mi ngi tax ba muy muy teel a euh, wa wa euh, wér. donc mais amagul benn médicament bu ñu homologué fenn léegi da koy xaj tous les pays mhm. dañu nekk phase essai clinique mhm. euh, seet ku nekk day seet li ñu man li ma gëm nañu si continuer xool lan moo gën ba bu fekkee loolu moo war mun mën a jeexal corona bu jeexal ko mais ci temps science maintenant am na leneen li ci biir li nga xam ne sur le pompe ci biir maintenant étude scientifique bi boobu am na ñu koy liggéey avec ay mais dans principe bés bu def recherche bi ko war a biir ñu xool lu tax ñu laaj loolu parce que dañoo xam ne euh, yaa ngi bokk ci kuréel boobu de OMS maa ngi koy junj sànq waaye ñoom peut-être dañoo amoon benn ndogal wala benn recommandation bu ñu jëloon ci wàllum euh, artémisia boobu. moo peut-être mu xawé indi jaax jiixi jaax mu melni ñom ñoom joxew ñu seen aval pour peut-être ñuy utiliser bobu les euh, traitement euh sur ce hmm hmm ñu ngi lay déglu baax professeur man waxuma Honoré Loye mais sama tur boobu laay hmm donc ci cooke pour man mm-hmm. euh, en tout cas mooy li ma waxaat sànq ça. c'est-à-dire que aujourd'hui essai clinique dañ ko autorisé bu ñu ko utilisé fépp nag man mhm. ak képp ci appliqué am nga droit mën a tester produit maintenant produit bi ñu ngi def benn benn étape la mais pour man mhm. encore une fois bu waxee ma ko ñaata lay ne parce que ak man consultant consultant la mhm. euh, euh, donc dama koy laaj sama xalaat ma wax ci donc moom également même cadre laa koy wax alors peut-être laaj bu njëkk bu mujj bi balaa ñu lay euh, libérer professeur Ndiaye confinement bëri na lu ñu koy tudd fii ci Sénégal est-ce que jàpp nga ne euh, lu war a mën a euh, indi saafara ci mbir mi war a peut-être benn fausse bonne solution la. bon xam nga c'est vrai que na ci moom parce confinement ak man boo xoolee waxtaan naa ci sama paase li mu mën a jëm mooy parce Afrique dafa am toll. am lu ñu mën ak lu ñu mënul donc du ma ci mhm. du ma ci du ma ci sori ce que je peux euh, professeur waaw mhm, ñu ngi lay déglu ci wàllum confinement bi mu mel ni am na ci loo ci doon euh, indi ci ay leeral Non, madame, damay waxoon nag je parle de confinement ciblé je parle de confinement ciblé au moins parce que confinement global peut-être que tous les pays qui l'ont fait aussi très li ñu qui ñu koy gis mais effectivement mën nañ jël confinement ciblé par rapport aux zones surtout concernant les cas communautaires. Mhm. et l'OLU, c'est nañu mu xew au niveau au au niveau au niveau de beaucoup de régions du Sénégal. Mhm. au niveau des régions, donc man loolu l'a encouragé parce que confinement total li may bañ mooy bu ñu ko defee tey xamuñu kañ lay jëf te fekk amul njeexital dugg ci yomb na mais génn ci effet nga ciy génn. Mhm. est-ce que après bi ou parce que y' a beaucoup de aspects yoo xam ne day defal du cadre scientifique cadre cadre médical à prendre compte. mais par contre mhm. compliment man lu war a ko la tey loolu bu déggoon ci ay temps yu ne Tambacounda gouverneur bi. def na gaa kii nit def na lii même Sénégal loolu lu ñuy lu la parce que mhm. tout le poursuivre parce pandémie bi mhm. jërëjëf euh, professeur Ndiaye ci leeral yu am solo yooyu nga ñu doon indil jërëjëf ñu leen sant mhm. professeur euh, Daouda Ndiaye ñu koy euh, sant bu baax di ko gërëm ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne indi na ko may fàttali rek euh, ni mu ngi foofu ca université Cheikh Anta bu Dakar rawatina ci faculté médecine pharmacie odontostomatologie ak itam di ki nga xam ne dafa bokk ci organisation mondiale de la santé di.